parce que tey sëriñ ci nga xam ne tey te loolu information la bi mu lay jox. mais waa sëriñ ci nga xam ne ñoo nekk Pastef ñoo def délégation dem sëñ Mountakha ñaan ko. sëriñ yu nekk Pastef. waaw ñoo dem def délégation ñaan sëñ Mountakha. ñaan sëñ Mountakha ne ko Macky Sall dafa nar a dem Ziguinchor jëli Ousmane Sonko. du Macky Sall moo koy jëli justice moo koy jëli. xam nga du Macky. justice la. Ah. ñu ñaan Macky Macky ñu def délégation sëñ Mountakha bi bi gars yi bu mu xamee bi bi mu xamee ne gars yi njaboot yi sonal na ko ku nekk di ñaan ci la yónnee délégation dem ci Macky sàll pour dawal jàmm mais loolu ñaan boobu ñoom ñu doon ñaan sëñ mun Mountakha dama lay leeral lu bëri loo xam ne tey ñu bëri xamuñu ko parce que ñoom dañoo bëgg nan la ñuy aménager pennu Ousmane Sonko. man la ñuy aménager penn bi. waaw loolu nag loolu. lo xamne la senegal yëpp kenn ñu bari yeguñu ko xamuñu ko. manam mais xam nañu Ousmane Sonko est coupable. ñom xam nañu ne day teud xam nañu dinañ ko justice dina ko japp xam nañu dafa coupable parce que euh, les faits sont précis. mais lu tax mu tok ne complot la. non mais kenn su ko def dara mu gëm. loolu partisan non non mais c' sa manière d'opérer c'est c' sa mode opérationnel am la ray rey lu ay xalé def lu def lu ko neex mais tay di lu ma leer ba leer mooy tey délégation bi sëriñ si dem dem ba sëñ Mountakha ñu ñaan ko pour que bés bu ñu koy jàpp ñu aménager ko peine mooy tey mën na mën nañ ko sax tëj mais fekk lu toog lu nekk kaso nekk këram wala ñu takkal ko bracelet wala defal ko dara mais Macky Sall comme que moom dafa def séparation di pouvoirs ak accueillir na gan yi biir pale ñëpp gis nañ ko sëñ Bass Abdou Khadre ñëpp toog

parce que je sais que justice bi ma justice bu déterminé ce que Ousmane Sonko a fait manam ci homme politique bu def attaquer les forces de l'ordre de forces de défense et de sécurité bi attaquer justice te ben homme politique musuko def Sénégal mais peine du meuna subir. il a traité la justice de banditisme. de banditisme de tous les noms d'oiseaux aux mais euh, Tange dina la révéler lol tay dina la subir peine bo xamné homme politique musuko ko subir Sénégal Ousmane Sonko man ma la wax fi tay benen benen affaire bi aussi moy euh euh fi ma fi ma bëgg a moy lutax mu génn après bi ko waa bi bi déclare euh, euh, délégation xalif général des mourid jogé ci Macky Sall. c'est très important très important parce que lien bi xam nga lan la. Uh-huh. moy fofu la amé certitude mën na génn. manam ndigal la am pour génn mais les gens dañuy sont né voilà Sonko génn na mais Sonko génnul Sonko dafa dem ba Khalif général dem ñaanal ko jamm mu mais pourquoi légui nak ñom général len saga ci violence bi len manifestation di rey ay bakkanu doomu lutax ñuy défier l'autorité religieuse basé wu ci ay sénégalais yi France yo xamné dañoo perte France wala États-Unis wala Canada defé na souffrance Manam condition yu bon yi ñuy dundé euh, euh, euh, en en France wala ita à l'étranger que régime Macky Sall bi wala régime Abdoulaye Wade mo leen ko def le président bu ñëw buy daanu day daanu ci diaspora parce que ñom dañu fogné sen condition yu yu bon yi ñu fofu mais ñom d'abord bi ñuy dugg France wala Italie wala Espagne ñoom si illégalité la ñu duggee. illégalité la ñu duggee ñoom seen bopp ils sont illégal illégaux fi ñu nekk. waaw léegi kon ñom mën nañu jox leçon kenn. mënuñu jox leçon Macky Sall mënuñu jox leçon régime bi. mënuñu jox leçon sénégalais ñom ñoom bu ñu dëgëree fit nañu ñëw Sénégal tok fi jàkkaantoog comme ni ñu ñuy régime bi ñu jàkk jàkkaarloog ñom face to face mais toog fële di sànni ay bomb euh, di def say comme.

mi ngi koy soog wax démb. mu ngi soog wax monsieur le président Macky Sall. waaw ah, jox na ko cër bi démb. jox na ko cër bi jënd na il a mis de l'eau dans son bissap. il l'a mis. waaw il n'a pas géré la main sur le cœur. waaw mais il a mis. <laughs> il a dilué son vin. <laughs> Comme que moom la main la main sur le cœur trois fois. ah il a répété trois fois. léegi nag loolu xam nga lu muy xam nga lu muy mhm. day wone que le président de la République est un, est un, est un, chef, est un, est un homme d'État. Très serein, mais sans faiblesse. Macky Sall ku yaakaar dafa nooy yaa ngi nax sa bop ku yaakaar ne jàllukaay la yaa ngi nax sa bop ku yaakaar tamit ci violence wala ci fitna ngay jëlee rew yaa ngi nax sa bop donc ku yaakaar tamit suñu kilifa diine yi ñoo yàq rew mi yaa ngi nax sa bop tay bi nga soxla kilifa diine da nga yónnee sa délégation kër diine yëpp daaru mun fu nee la ñu yónnee ñoo ñoo dajaloo dem ba sëñ xaal di raam ci suuf di jooy ne sëñ Muntaxa Mbàkke ay sax yaay yaakaaru jaam yi waxal ci Macky Sall ba mu soxlaa Macky Sall tamit nee na ko président dox na ko cëram waaw te chaque laay waxal Macky Sall laay waxal mel ni koy wax ak <laughs> waaw léegi nag dëgg rek ay mujj te Mbàkke ay sax waxoon na leen waxoon na leen ne senegal gi jàmm rek fi am te vidéo boobu soo ko yoree man dama bëgg nga duggal ko fii parce que